jërë ngeen jëf mbokk internet yu ñuy àndal ci Thiès Info TV seen euh, seen YouTube de référence bi lee ci seen rubrique jàngat ñi ngi leen di nuyu jaajëfal leen foo leen mën a ne ci àdduna bi rawatina biir Sénégal waaye bala ñuy sori dañ leen di jox seen clé ngeen ubbi seen jàngat mooy lan da ngeen di bës abonné ci sunuy seen euh, bi boo leen pare ngeen laal cloche de notification bi bu ko defee vidéo bi foo leen mën a ne mu apparaître ngeen man koo am en temps réel et en toute exclusivité boo leen paree ci loolu ñaan nañ leen ngeen commenté ko waaye ngeen partagé ko tey dañuy dem ci Joal waxtaane lu doy waar foofu day loxob gune gu am ñetti at moom la ñu fekk ci seen ba ñu daggate ko sànni ko fa lu ñu mel nag tiis indi ak jaaxle ca askan wa loolu lañ leen fas yéene waxtaane mbokk yi soo leen teeloo ñu ñëw ci sujet bi ay cee ñu dem mu mel ni daanaka ak jaaxle ku tiitaange askan wa yeewoo ca diwaanu Joal fan yi yëpp moom la ñuy xëyee di ko yendoo foofa nag daanaka ab sën la benn euh, délégué de quartier maanaam c'est de quartier bay julli ji euh, tisbaar yem ci loxob gune gu am ñetti at ñu dagg ko sànni ko ca kaw sën ba mu yem ca tiit loolu mbir mi nag daanaka bërki démb la am ca diwaan ba foofu noonu ca commune nu Joal Fadiouth ca quartier Caritas mu mel ni boobu bile quartier day njaaxle gu tar dundu nañ ko ndax nag délégué de quartier bile maanaam njiital quartier bi dafa doon euh, julli ji tisbaar yem ca sën ba xale bu am ñetti at ñu dagg loxo ya sànni ko fa. lu ni mel nag ba mu ca yemee gëmu ko woon waaye daf koo gën a jige xool nag baaraamee sax ñu daal ko ni kit. mu mel ni kon xale ba loxo ba ak baaraam ya leen ni kit sànni ca sën ba bi 14h jotee nag ca la yem ca mbir ma laataa muy dem di julli ji ca la ni tekk nag def ab jàngat yëraat sën bi bu baax a baax xool la nga xam ni moom mooy loxob gune ga ba ràññee ni kii kat ak gune la booba nag la daal di niiru seet téléphone am daal di woot gendarmerie ni leen ah am na lu ma fi gis lu ma yéem lu doy waar ndax damay ñëw di julli ji yem ci sën bi loxo gune goo xam ne nee nañ ko tipp dagg waaye li ca gën a yéeme baaraam ya am na ci baaraam yoo xam ne dañ ko caa wekki kon mu mel nag kuuñu goo xam ne la doy na waar moom daal laa fekk ci sën bi ba mu informé nag gendarmerie gendarmerie samp aw xel ñëw fekk si délégué de quartier bi ci sën bi bi nu ñëwee ñoom itam ñu àndandoo daal di découvrir lu nu mel bi nu ko gëstoo daal cee la askan wa yeewoo ca diwaan yooyu yëpp quartier yi nekk ca wetu sën ba yëpp génn rawatina quartier Caritas ga nga xam ni fale mbir ma amee. ñëpp génn ku ne di ko defum diiraan kenn bëggu ci information bi rëcc la ndax loxob xale bi yéem gi mu yéem ci sën bi la ci gën a yéeme nag ña ngi ko dendale ak fas woo xam ne nee nañu dafa dee ñu sànni ko fa mu mel ni daanaka luy doy la ndax loxo ba moom boo xoolee yenn baaraam ya dañ koo wekki yeneen ne ñu bàkko ca bu fekkee euh, muy xibaar bu doy waar muy loo xam ni ba ñu ko découvrir ñoom ñépp yéeme nag ndax nag daanaka bare su sax lu ñu ko fay gis ca kaw nag ca la gendarmerie daal di tawal enquête ba commandant si ak ñam ko àndal ubbi ab l'enquête dugg nag ca kër ya nga xam ni ñoo féete ca quartier boobu di Caritas ubbi seeni gëstu ba nu gëstoo nag xóotal daal di gëstu parents yi nga xam ni ñoom itam ñàkkoon nañu seeni njaboot ci diggante boobu ñu xool ndax dañoo sulli seen bàmmeeli doom jël seen loxo yooyu dagg leen wala déet loolu lépp dëxëñ nañ ko ci enquête bi muy bis boo xam ne tiis na ca Joal ca Caritas askan wa nag ak dëkk yee ko wër yépp wala sax tund wa kenn ku ci nekk rek yaa ngi jéem a xam li xew lan la bëggoo kenn nitali la ko fu ne ña ngi fay bàyyi ko di daw di ñëw ngir mën a gëstu loolu bi xibaar bi daanoo nag mu yéem ndax kenn ku nekk yaa ngi jàpp ci sam xel ñi naan ndax ki def loolu da ci am jëfandiku anam woo xam ni dëppoowut ak anam wu baax ñenn ñi ni ndax xale yi nga xam ni toll nañ ci at yi nga xam ni moom lañ leen sula signalé xale yooyu le danoo sulli seen i néew wala déet ba tax na gendarmerie moom ma ngay làbbal enquête ba ci diwaanu Sowal di teewlu parents ya waaye di teewlu ña nga xam ni ñoo dëkkee ci quartier boobu ngir jëf ju ñaaw ji ki ko def ñu mën koo teg loxo mu mel ni jëf la joo xam ni soxna yi tuur seen sax ci soxna yi tuur mbalit ci seen bi ñoom ñoo ci gën a amul njaaxle ndax ñoom bariwul lu nuy seet lu nu mel maanaam jëye gu mel nii ak lu yéeme nii xale bu am ñetti at nga dagg loxo ba yemoo ca dagg baaraam ya te bëccëgu dara kàmm la ko defkatu ñaawteef boobu def ndax nee nañu boo jàppee bu boo diggante douze heures jàpp quatorze heures ci la lu ni mel feeñ waaye délégué ba moom moo ko feeñal délégué de quartier ba ndax da doon dem ca jàkka ja doon julli ji tisbaar yem ca muy information bu doy waar bu yéeme. lu ni mel nag ba tey mbokk internet yi ñu wéy rek ci fee bi nga xam ne am nañ ko di ko faram-fàcce muy tiis loolu ndax enquête ba moom gën nañ koy yaatal dugg nañ ca kër yi nga xam ne ñoo jige seen ba daanaka lucc nu kër ya gëstu leen waaye wëlbatiku gëstu borom kër yi nga xam ne ñoo ne ca quartier ba ku ci amoon xale boo xam ne faatu na ci diggante bi wala ci weer wi ñu ne ñu daw nag ca armeer ya dem gëstu ji seeni bàmmeel ndax sulli ko def ci jëf ju ñaaw ji mooy li ñuy duppee profanation ci tubaab lu ni mel nag tax na ba bi gendarmerie wéelee enquête am daal muy xóot te ba léegi xamaguñu kat moo def jëf ji ñaaw jooju ca diwaanu Sowal ñoom de ci dogal am nañu nag ci dogal gën a wéy enquête ba waaye jàpp nañ ci xibaar yi daal ni gune gi nga xam ne moom la ñu dagg loxo bi wekki baaraam ya moom day denc nañ ko ca sëgi Sowal ngir nag jébbal ko boroomam ndax lii moom yéeme na te doy na waar mu nekk xibaar boo xam ni mbokk internet yi tiis na waaye noonu leen ko déggee ba tey nag gendarmerie comme ni leen koy waxee rek ña ngay woy ñoom di ubbi ab enquête muy xibaar bu doy waar di benn xale su am ñetti at ñu fekk ko ci ab sën ñu wekki loxo ba ba pare dagg baaraam ya sànni ko délégué de quartier ba dem di julli ji tisbaar dawal ay kuru sama ki dogam ba mu ca yemee daal di freiné nee na sax tëguut woon ni loolu la waaye ba mu gënee avancé ba ñëw ba ci digg sën bi ci la gis loxob gune gi ñu wekkeet ku teg wëlbati ku dagg ca baaraam ya teg muy lu doy waar mu rocc téléphone am daal di woo gendarmerie gendarmerie ñëw ànd ak moom ci loolu askan wa leen gis nag gis oto gendarmerie daal di génn nes tuut quartier Corentas ak yeneen quartier Caritas ngeen baal ñu ak yeneen quartier na ci diwaanu Joal ba ñépp génn kenn ku ci nekk rek ki bëgg dañ kumpa li xew lan la kon bu nekk fee bu doy waar ñu faram-fàcce ci ay ponk bi njëkk mooy wàllum profanation maanaam dem ci ay ndax jamono yi rek amoon nañ fi xibaar bu mu ni mel jenn waaye dem ci ay armeer di sulli ay néew am yum ca dagg muy lu doy loo xam ni dëppoowut non seulement ak culture Sénégal te itam bariwut loo xam ni dañ ko fi dégg ci réew mu mel ni Sénégal muy lu doy xale bi nag dagg nañu ay baaraamam waaye xamuñu ki def jëf ju ñaaw ji lan la ci jublu ndax xibaar bi nga xam ne moom lañu am tañ leen koy baaxe amul fenn foo xam ni wax nañ ni jàpp nañu ki def jëf ju ñaaw ji ak anam wi tax mu def loolu waaye lu ci mën a xew rek dinañ ko topp muy lu doy waar loxob xale bu am ñetti ak ab innocent koo xam ni innocent la boo xam ni kenn xamul lu mu doon jariñ ëllëg ci réew mi nga ñëw dagg ab loxoom sànni ci sën bi daggi baaraamam loolu doy na ci waar ba mu faatu doolu yéeme ne loolu te tiis na mu ni fee la boo xam ni jot na nag tey kenn ku nekk rek di vigilant ci sa njaboot ak fu mu mën a nekk moo xam ci barab yi yi nga xam ne dafa fasantikook euh, suñu société ca la ñuy ne wala déet waaye jëf ju ñaaw ju mel nii moom gëj nañu ko dégg te itam gëj nañu koo gis rawatina na dëkk bu mel ni Joal Fadiouth muy lu yéeme ñëw wekki baaraamu gune faram fàcce ko teg ko jël ca la nga soxla dem mu waroon na ñoo xam nag def jëf ji waaye nag gendarmerie ubbi na ci l'enquête donc kon cadre vigilance boobu ñuy wax feeñ na ci jàngat bi waaye beneen bi ci des mooy maanaam xëy na moom la mu ca jublu xëy na day sacrifier xëy na loolu waaye nañ ko topp waaye mënuñoo juger waaye li ñu njot rek mooy xëy na da cee jublu loo xam ne dëppoowut ak lu baax ndax ku mën a jël loxob xale dagg ca la nga cay dagg sànni ko ci ab seen dem foog ni raw nga boobu yaa ngi nax sa bopp kon nag enquete bi kon dañ koy bàyyi ak gendarmerie rek bu ko defee lu luñ ci xamaat rek ñu ñëw faram-fàccee leen ko ci seen rubrique fait divers kon mbokk internet yi ñu samp laaj bi gis ngeen fee bi gravité bi mu am ci sunu askan tiital askanu sawar rawatina ne yeewoo ca quartier boobu di quartier Caritas bërki démb ba léegi kenn nekkatul ci ay nelaw yu neex wala lekk gu lekk goo xam ne dina jàll ndax tiitaange ci sa njaboot. ab xale bu ñu fekk cib seen muy doy waar ni leen ko nittilee internetu Thiès info nan ngeen gisee fee bi ak gravité bi mu am ci suñu askan bàyyi leen suñu réponse ci parti commentaire bu ko defee bu ñu xëyee man leen cee tontu beneen laaj bi mooy naka la ñuy def nag ngir gën a yokkaat suñu sécurité ba xale yi nga xam ne dañ leen di def jëf ju ñaaw ji ñi leen koy def ñu man leen teg loxo loolu mooy naka la ñuy def ngir suñu sécurité ñu renforcer ko lan ngeen ci xalaat donc dañ leen di bàyyeeg suñu ñaari laaj yi di leen jox dig daje ëllëg ci seen yeneen sujet faits divers ci Thiès Info TV jërë ngeen jëf